jël di ci ñaar mu tuula amul lu ci ci li dogal dafa seen scandale du jour de ce mercredi 3 janvier 2024 fii ci VIP People waa ji nag ginnaaw bi mu woote ci émission bi ndaw si ne ko tu wala mu ne noonu il est apolitique nañ dem déglu li nga xamante ne wax na ko ci président Macky Yalla tere je suis apolitique je suis énergiquement à la politique bu doon sama sago Macky Sall mooy continuer mandaam continuer liggéey rewmi parce qu'il connaît déjà les circuits am na lu mu. ñoo ko déggandoo ñoo ko bi ko ndaw si newé xana wa Pastef nga mune yalla téré tere mukk ci àdduna bu mu jëm kaw mais nak il est apolitique il est allergique à la politique. daray politique safu ko mais nag bu sañoon président Macky Sall dafay daal di continuer loolu yaakaar naa tey boo jëloon micro tàllal ko Sénégalais yi bu ñu jëloon les cent les quatre-vingt-dix yëpp loolu lañ lay wax parce que au moins xam na Sénégalais yi au moins xam na jikkoy Sénégalais yi président Macky Sall daf ñu maîtriser de président Macky xam na suñu jikko de te ko xamul suñu jikko pour nga jiite dina métti parce que sénégalais moo foo sénégalais mo bëgg lu yomb sénégalais il faut nga tek lu metti pour mu xam yaay kan té président Macky Sall loolu lañ dund ak moom il fallait que mu metti pour mu réaliser lu mu réaliser yépp donc xas na xam yoon bi ba pare donc si c'était à choisir à ce que mu continuer xam naa ni ñi koy tànn dana bëri parce que sénégalais moo foo te xam na moom miis na suñuy jikko xam na ñun ñooy kan toutes les rêves ne sont pas forcément réalisables mënta continuer te moom moo jël décision boobu ne mënta continuer mais dañuy ñaan yàlla rek ki fi yàlla teg nay dox ci tànk président Macky ki fi yàlla tegaat nay dox ci ay conseil président Macky Sall parce que na wax na ko ouvertement nee na leen du ma bokk du ma dem waaye nag ku dem ba am maanaam ku dem ba falu bu ñëwee ci bu doxee bëggee tànk dox ci samay tànk dinaa ko aal samay dàll bu bëggee dégg li may wax dinaa wax mu dégg donc dañuy ñaan yàlla rek sagam moom mënatu fee nekk te dafiy juge te yàlla na fi juge ak jàmm ak salaam dañuy ñaan yàlla rek kii ñëw déggal ko kii ñëw di ko laaj ay conseil ndax naka c'est un très bon dirigeant c'est un homme d'état homme d'état la quoi qu'on puisse dire ndaanaan la ndax nee naa leen diriger Sénégal yombul wër gàmmu sénégalais yi yombul di nga dem côté bi ñu ne la du fi fee la nga dama fee ñu ne la fi fee la donc il faut avoir la tête sur les épaules pour mëna diriger ñun les sénégalais parce que ben bu suñu défaut bu gën a mag mooy dañoo bëgg lu yomb dañoo bëgg nit ki defal ñu lépp alors que mënul nekk nguur mënul satisfaire ñëpp bour mënul satisfaire ñëpp kenn la ko kenn ko mën moy yalla suñu borom té nangu ko def mën na ko nag mais da ko dul def parce que daf ñuy jàngal ni que rien n'est facile et que on la facilité. waruñu bëgg lu yomb Sénégal njaay ñun ay gaynde lañ. waa ji suweem la wax te yaakaar naa dégg nañ ko moom dafa ñaan rek waaw saga mënul nekk mais ki fii ñëw yàlla na jéem a dox ci ay tànku président Macky Sall. Tandis que Dieu qui vit l'Ivoire Le tigre au boule En mon nom, tu dis que